nii ci bés bi bés bu mag la ci gestion des déchets 2019 président dafa terloon ñaari programme yu mag mu dénk ko ministère de l'urbanisme benn bi mu ngi ko tuddee programme zéro bidonville beneen bi mu tuddee ko programme zéro déchet ci programme zéro déchet xam ngeen ni président mu ngi ko dénkoon UCG bi nga xam ne ci cabinet ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique la nekkoon UCG yemoon ci ndakaaru kese président ne na egg fépp Touba gi UCG amu fi woon président Macky Sall moo décidé na àgg fépp surtout nag dëkk yu mel ni yu mel ni Touba. projet bi nag am na solo. ndax daf ñuy may li nga xam ni moom la ñuy collecté ci plastique ci dëkkuwaay yu mel ni tuuba ñu mën ko transformer ngir mu mën a am njëriñ ni ngeen ko gisee léegi ci visite bi c'est une chaîne de traitement de pré-traitement de plastique pour que plastique yi ñuy for ci mbedd mi ñu mën ko transformer en granulé pour que ultérieurement mu mën ñu amal njëriñ mën nañ ci xalaat sax def ci ay établissements pour écoles yi wala yeneen utilisation donc am na solo lool pour ñun ndax dafay may Sénégal mu commencé dugg ci transformation des déchets